loolu yi bëri na bu fekkee ne mu lay déglu Sarr Mame le procès de du président Ousmane Sonko est-ce que Sonko dafay dem est-ce que Sonko du dem lan moo am Sénégal est-ce que Monsieur Cheikh, est-ce que duma bàyyi

laa ngi leen partagé la Mister Shake la gis ne ma macha allah man maa ngi sama jàmm xool leen ma sama suuf baax ko 44 bu laay turee jërëjëf tey la 5 n'est-ce pas ñetti fan moo des su Sonko war a dem ci procès Mame Mbaye Niang gisuloo kenn wax ci gisuloo kenn wax ci lii nag vraiment daf lay won ne Sénégal du dëkk quoi man dama commencé maar quoi parce que man. man lii xaw ma ko man xaw ma nit ki ngay xeex ñu lay bundu xataal say militant rek toog fi ñu toog mu mel ne procès Mame Mbaye Niang mu mel ne mosul am mu mel ne musul am loo xam ne moo yëngal réew mi Sonko ñu toj vitram jàpp ko fi violente ko nee na sax dañ kaa sotti poison mais mu des ñetti fan Sonko communiqué wuñ avocat Sonko communiqué wuñ ah kenn waxuñu dara ñun daal wa pasteur ñun dafa mel ne ñun daal léegi duñu ay nit quoi suñu analyse ñoo ko war a defal suñu bopp suñu conclusion ñoo ko war a defal suñu bopp Sonko keroog ba muy def ah waaw kay kay soof tamit merci bëggoon naa ci wax doon def live am ñu coupé live am très bien waaw xalaat TV toog na presque un mois waxuloon keroog dama ko doon wax sama live ma fàtte gars yi gën leen laaj gën leen partagé ana kay soof man xamutuma lii ban façon xeex la je ne comprends plus kay foofu doon def live live bi jeexul sax gars yi coupé live bi c' est vrai est ce que dem ngeen euh, compte euh, euh, Facebook kay foofu ba ngeen fa demee lan ngeen gis kañ la gëj a def publication voilà est ce que dañ koy jéem a intimider est ce que dañ ko jàpp est ce que dañ ko jéem a intimider on ne sait pas mais balaa may wax ci kay foofu nañu wax ci Ali Kalaj man moom dootuma fi nekk di rey sama bopp chaque jour. su ma yewoo Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal di sacrifier ba sacrifier samay vacances comprendre waaw parce que Macky Sall mooy nit koo xam ne booy wax ci Sonko même boo attaqué wul sax ñëpp xam ne monsieur Cheikh man du ma attaqué kenn au contraire ay temps sax dama doon wax euh, réconciliation nationale man ay rey Macky Sall intéressé wu ma tëj Macky Sall intéressé wu xam ma la moo ma intéressé ñu récupérer suñu réew ñoom ñu dem ci jàmm ak salaam mais ay taal pono ay lakk kër Farba Ngom ak yooyu soxlawu ko nit ki mën nga gañe li ngay gañe ñu abal ñu ci réew comme Sonko ni mu koy waxee parce que Sonko bu jëlee réew boo xam ne guerre moo fa am dina toog deux ans trois ans pour defaraat mandaam jeex kon ñu lépp lu ñu mën a def ba Macky Sall delloo ñu suñu réew te mën nañ ko te duñ ko rey duñu rey waa APR loolu mën nañ ko def mais nag résistance moom fépp la am bu dee dañu nekk am président boo xam ne moom dafay jàpp nit ñi di tëj jàpp nit ñi di rey parce que nañu waxante dëgg Mancabou dafa dee nañu waxante dëgg Didier Badji euh, Fulbert Sambou xaw ma moo dee Didier Badji kenn gisu ko ñoom ñaar xaw ma kan moo ci dee ak kan lañu ci gisul ah nañu waxante dëgg Papa Alé Niang dóor nañ ko fi juróom-ñaari bal man du mu fi nekk di ragal comprendre waaw waaye waaye man ay rayaate yi ça ne ay taal pono ay cocktail molotov yooyu genre wax yooyu jaru ko parce que peuple boo xam ne da nga ko jàpp di ko noot boo waree jóg moom mooy jógal boppam kon soxlawul ñun ñii activistes yi di wax nañ taal fii nañ taal fii soxlawu ko yéen may dégg Macky Sall li muy def yëpp boppam la koy def jàpp nit ñi di tëj bu demee ba ci biir dina indil boppam problème déjà dégg naa waa Pastef nee nañ dañuy def grève de la faim lu ma 200 personnes yu nekk rëbës dañuy def grève de la faim ah Papa Ndiaye le 23 mën na am ñu bàyyi ko parce que commencé nañ bind wax ay euh, dugg na fii journaliste yi li ñu li ñu leen def Sénégal kon Macky jàpp yu muy jàpp da koy indi problème Khalifa Sall dem jébalu Barthélemy Diaz dem jébalu léegi nag ñu génn di wax non non jébaluwuñu dañoo invité ñu dem fi waa gars yi di gën laaj da ngeen a partagé mais balaa may egg ci point yooyu nañ ñëwaat ci parce que Sonko communication des na. président Sonko communication desna parce que lu dal le 8 mai bo defé appel da nga wara genn nga ne da nga def appel té lolou lay nduru dafa mel président Sonko dafa dugal appel parce que yone may nako ba le 29 euh, avril pour mu def appel mais Macky Sall xoolu lolou procureur Amadou Diouf wala euh, euh, euh juge Amadou Diouf xoolu lolou ñu enrôler cas bi cas bi ñëw obligé de Dakar le 8 mai kon Sonko dafa dafa dafa appel appel say avocat appel mais doo informer nous ñi la Pastef kenn wax affaire de dictature dictature président Sonko jékki dox nous nous informer nous wax dara ñun dañuy rek di di di di am am Sonko day dem ci il Cheikh di wax naan Sonko dafa war a dem ci Adji Sarr Cheikh Bara Ndiaye képp ku ma xam xam ne moom laa wax ne c'est le meilleur analyste du Sénégal waaye bu dee Sonko moo ko yónnee pour mu wax loolu ne day dem ci affaire Adji Sarr vraiment man ànduma ci tey ànduma ci suba te suba la fii laa ko waxee président Sonko bu toogee ak Adji ci benn tribunal man bàyyi naa laay di wax ci Sonko billahi wallahi taala fii laa ko wax man kenn du ma ñàkkal fayda kenn du ma ñàkkal fayda Cheikh Bara Ndiaye warul toog di wax ne Sonko dafa war a dem ci procès aji Sarr bu fa demee dina fa am lii dina fa am la lan la fay am lu dul toroxal nit da ngay am fayda dangay am fulla da ngay am fayda Sonko warul toog ak Adji Sarr ci tribunal toog ak maître El Hadji Diouf ci tribunal waru ko def mais Cheikh Bara Ndiaye génn nit ñi di ko déglu muy wax lu mel noonu di encourager ñoom Macky Sall pour ñu envoyer Sonko convocation ndax Sonko ay avocat dañ ne jotul convocation mais bu ñu déggee li Cheikh Bara Ndiaye wax dañ ne kon xaaral ñu envoyé ko convocation mais ni da am fulla da ngay am fayda même bu la doon rey man maa ngi nii Mister li may wax aw ma lu ma ciy ragal te heure bu ma ñëw Sénégal incha allah dinaa ñëw bu dee sama destin mooy bu ñëwee Sénégal ñu jàpp ma ma ci rëbës wala ñu rey ma xam ne loolu mooy sama destin mais nit da am. nit da ngay am euh, principe mais ñu lay xoxatal di la xoxatal di la ridiculer di la ñakkal fayda nga nangu ko man kenn duma ñakkal fayda kenn duma toroxal sama heure senegal bu jotee fi la koy ané ne gars yi ngi ni ma ngi waji wacc aéroport bu ma ñëwé Blaise Diagne ñu nañ ma japp ñu yob ma direct rebeus mais au moins dina xamné man lima gëm la gëm duma melni ay Barthélemy Diaz wax ak askan bi li yow suba ñu wone la ngay photo ak Macky Sall duma Khalifa Sall wax ak askan bi li yow suba ñu gis la ngay jël sa bop di fugg ci bop Macky Sall bala bu fi kenn genn nak di wax non non lolu photo rek la yeen waru len taxaw ak Macky Sall même Sall bu fi kenn genn di wax signé wuñu photo rek la Macky Sall waru len tok ak mom men liya c'est pas possible munu ne Khalifa Sall di wax naan day dem ci dialogue mais bala ñuy wax ci Khalifa Sall wax ci ñu bop ñun. dictature bëgguñu ko moom la ñuy xeex Macky Sall Macky Sall dictature la ñu bëgg def mais Sonko tamit li muy def dictature lay nduróol parce que nga nekk waa Pastef amuloo droit critiquer yeewu askan amoo droit wax amoo droit wax li bu ñu dalee ci yeewu askan bi mu Sonko génn di ñu wax naan ñu waru leen attaquer waaye yeewu askan bi ndax ku nekk dafa am lu ñu la lu sant li ngeen di def da ngeen di démoraliser troupe mais Sonko daf ñoo xas ñun activistes yi daf ñoo xas من جيو مبوم واخا لول بالله جيو بيس ما اوكر برك رسول الله بالله والله تعالى بره مال سونكو مان لا دون واخا تانا خمنا انا كايس فوك بوكو ديغلو دي نينا سونكو مان لاي واخا عثمان كوكو راه بوكو ديغ دي نينا مان لاي واخا جي جي اخينا تون باسكو نين نو في نيك دي اتاكي دوم خليفه سال بو ني ديفو لو ني ورا ديف تاي تاي كان مو ام ريزون حبيب سي غيسو نيو كو مو تاخو ماكي سال دي سي Barthélémy tu as bien travaillé Khalifa Sall mu jël raison kan trahir daf ñu a ñu ñu dérouler lu ñu wara déroulé, ndax ñun c'est parce que amna lu ñu indi ci combat bi bo Sénégal ñu japp ñu duggal ci kasse bi amna lu ñu indi ci combat bi parce que dafa am audience lu tax boobu ba léegi déggatuñu kay soof kon nag Sonko dafa war a bàyyi ñun ak dafa ñu war a déglu te mu bañ a déglu ñu mel ne ay Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye c'est vrai mën nañ ko déglu waaye nag li mu wax démb moom man maa ngi koy doog a critiquer li mu wax tegu ko fenn Sonko dafa war a dem wuy ji ay avocat am dañu war a dem wuy ji ñun wóoluwuñu avocat Sonko parce que avocat xaalis la ñuy wër Sonko nag bu jugee di wax ne samay avocat fayu ma leen day wax nii rek mais amul benn avocat buy liggéey te duñ ko fay jóge ba naa Faso ñëw di liggéey te doo ko fay amul boo ko fayul di boo ko fayul ci nii di nga ko fay ci nii maa gars yi da ngeen di gën a like da di gën a ñun du ñu ne Macky Sall dictateur la ba pare ñu nekk ci régime régime dictateur Sonko mooy def lépp moom mooy moom mooy xam plan de guerre moom moo xam fu mu jëm mais ñun xamuñu fan la jëm nekk ci lëndëm ci lëndëm la nekk bu ñu jàppee nit ñu seetaan ko. ku melne ne Bassirou Diof Diomaye Faye ñu japp ko ñu seetaan ken djému ko sax libéré li F24 décidé xamuñu ko dañ fi dara tok ba le 12 ñu ñew def sen marche yu fay do yoy genn way way libéré libéré Macky Sall seetaan len bay len après ñu dem delu sen kër yeen nak activiste yi ngeen nek fi di saga di saga di saaga yàqal seen bopp yàqal seen famille mor gëndig ni ñu tal kërëm lutax parce que ya fi nek di wax pneu essence tal japp sen jabar laal

léegi mooy président ñu gis ko mu foto ak Macky Sall foto op même bu du dara photo bi rek dafa dafa dooleel Macky Sall gars yi gën leen laaj gën leen partagé man sama yoon nekkul ci Macky Sall parce que comme ni mu leen ko waxee Macky Sall ñun ñoo ko votal ñun ko fi teg 2012 yéen a ko fi teg 2012 yéen a jël Macky Sall ngeen votal ko man na leen bu leen votal Macky Sall man bokk ànduma woon Macky Sall 2012 Abdoulaye Wade laa faraloon mais tay dafa melni ne ak Abdoulaye c'est la même chose mais ablawat mo tane tane di nga xam mais 2019 du ma ko nëpp ba ma gisee li Sénégal def 2012 ba yàlla xam na ne man 2012 top mo won politique man tan yo daanu ma laaj daanu ma politique loolu la def daanu ma sax lijjanti Sénégal billahi mais ci ni ma sentir ak ni ma xamee nit dama ne Abdoulaye wad parce que xawmo sax ay affaire Karim wad Abdoulaye wad dafa bëgg def li dafa bëgg la mais man ni ma. li ma jàppoon dama ne Ablaye Wade daal laa gën a wóolu pour xuloon naa cee nit xuloon naa cee nit ma ne ko mu dem mu ne ma dinaa ko def Ablaye Wade laay votel nekkati yoo jaar na ci suuf mu dem votel Macky Sall ma xuuree ci nit affaire bi metti ma kon xam ngeen sama position mais 2019 ba ma wàccee Sénégal amuloon benn problème 2016 moom moom ma ñibbisee Sénégal def fa trois ans et demi man li ma gis mooy dëkk boo xam ne courant mi ngi dox gis naa ay autoroute gis naa jam euh, euh, euh, ñaajo pour man Macky ngi liggéey et puis 65 pour cent ñoo ko voteel dëkk bi amul dëkk amul rey amul dara ma ne kon ça ci lañ ne ma jàppaleel Macky Sall sa koñ léegi li benn waay wax ma benn waay affaire ci laa dugg ci politique ab la ba mu njëkkee wax sax damaa bañ dama ne ko ban affaire politique bu mu ci dugg mais moo toog une semaine mu ne ma seen koñ mën nga fa jàppale xale yi dugg na fii génn fi ma ne mais lii sax opportunité la façon man damaa ñëw ñibbi si Sénégal indi sama xaalis ubbi naa sama cantine HLM marché HLM su ma mënee def politique dimbali ci sama sama sama koñ ba pare man sama bopp mën naa ci sama bopp mais pourquoi pas naa essayé ci laa jàppale Macky Sall 2017 kon du ma fi ñëw di xalaf Macky Sall ndax man bokk naa ci ñu ko boobu xaw ma sax Sonko xëy na nag yéen boobu yeewu ngeen ba commencé ànd ak Sonko 2017 législative ma gañal ko suñu man ma mille fois HLM dama def euh, man li may wax dama koy assumer defal naa ko caravane defal naa ko meeting maire HLM sax ñëw xam nga te maire boobu ci Macky bokkoon benn bokk yaakaar mais tey boo demee HLM mille voix yooyu ñu gañe woon man ma gañal ko mille voix parce que man sama koñ dama fa am tur waaw ma def ci sama deux millions kon ñu gagné mille voix HLM yëpp euh, suñu centre bopp mille voix ay Nina Fall mooy centre bu gën a mag HLM 2 yéen a may dégg 2017 noonu laa def mais def ci sama deux millions après ñoom li ñu digoon yëpp bu defuñu ci gat gat Amadou Ba sax frère wax naa ak moom mu ne ma garaawul loo ci def après dinañ la rembourser patati patata xam nga loolu yëpp jot na fay am mais après rek ko Amadou Ba dama koy woo. nan la tudd sax wa Abaas Abaas moom su ma ko woowee di laaj sama xaalis mu ne ma yàlla na la yàlla fay loolu la ma ci tegal yàlla na la yàlla fay lekk sama 2 millions liggéey ben liggéey lañu outal ben benn lañu la ben xalé euh formation boulanger xalé bu jigéen xalé bi ndara bay salon ñu jox ko formation boulanger ñu dem ci biir sax loolu sax dañ ko mujj ndangu ñoom après pour vous dire après ñu mel ci la len bàyyi mais jéemu ma fa génn di vilipender euh, Abbas Abbas vilipendé wu ma ko damaa gëm yàlla te pourtant dernier jour campagne man sama caméra laa yor di leen filmer Amadou Ba si boppam dama ko filmer man dama daan dem ci ay réunion lépp kon man man awma lu may nëbb damay assume comprendre nga Macky Sall dafa mën tour la lëndëm nit man mii sax dañ dañ naa léere pour vous dire ñoom Amadou naa léere dernier jour campagne HLM laa jël sama caméra topp caravane euh, euh, euh, Boun Abdallah Dionne di leen filmeel di leen filmeel ñu wër Dakar yëpp ba ay booru euh, nu tuddati yàlla na ma yàlla fay la ma ci tegel Abbas bu ma dégg du ma bàyyi ma fenn rakk Amadou Ba dem naa ba seen kër gis beneen frère am beneen frère bi si bopp bu xees moom moo ma doon wax garaaw loo ci def dinañ la remboursé ma def ci sama 2 millions filmeel leen dagg dugal Facebook boo leen demee ba sama ba léegi nii sama page Facebook boo leen demee di ngeen boo leen tapé Amadou Ba Mister Shake gëm naa ne di ngeen gis photo yi dem leen sama page Facebook cest à man ni may xeexee ak gars yi nu ñuy xeexee du benn comprendre man faalewu ma Macky Sall faalewu ma Sonko man Sénégal laay xeexal Sonko sax faalewu ma man maa ngi jaagu nag de mais man faalewu ma Sonko nekk président wala mu bañ a nekk président man Sénégal jëm kanam Sénégal su ma sañoon Sonko mooy nekk président xaw ma sax fi may waxee xaw ma ko parce que bu ma dégg bu nit déggee ma ne faale wu ma Sonko dañu yaakaar ne faale wu ma mais dama leen bëgg wax ne xeex bi du sonkoo même kay sa koy wax xeex bi du Sonko gars yi gën la laaj gën la partage wala xeex bi du fi jëlee jëlee fi Macky Sall déedéet juum ngeen xeex bi du Macky du Sonko Sénégal la ñu war a soppi léegi man ba ma leen defalee loolu yëpp ma jël Facebook tag tag bu yooyu dugal ko fay Facebook publicité am ay vues yu dul jeex publicité. rakku Amadou Ba woo ko di ko woo téléphone pour nang pour laaj sama xaalis même bu dul sax sama xaalis mais pour xool nan la ñu war a continuer yàlla na ma yàlla yàlla na la yàlla fay lan la ci tegal ci laa bàyyi. maanaam ma bàyyi koog yàlla mais gis nga yàlla li muy def ba ma ko bàyyee nag ci la affaire quatre quatre vingt quatorze milliards bi nekk naa di nekk buy ma gis Mamour Diallo xam nga liggéeyal naa euh, euh, euh, Macky Sall deux ans te xaw ma sax Mamour Diallo côté deux mille dix neuf yooyu sama jabar daal la leeral net laa laa doon seetaan rek gis Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards Sonko moo ko jiiñ ma ne non c'est pas possible kii kay xanaa du Mamour Diallo sama sama ñi nga xam noo bokkoon classe mooy directeur debet noonu laa contacté waa Mamour Diallo ko xam nga ñu toog waxtaan domaine sax laa bureau domaine sama papa foofu la doon liggéey foofu laa njëkk deb seeti Mamour Mamour dafa ne ma du recevoir ci bureau domaine c'est-à-dire yéen xamu leen Mamour Mamou Diallo nit ku bax la seulement politique bi moko moko changer même pour te dire bama ma duko set bureau des domaines dafa néma man du recevoir domaine parce que domaine fofu pour Sénégal la du politique. il faut nga ñëw sama bureau sama bureau fumay défé sama constat monsieur non la ko sété bam ko sété ma expliqué ko ko man man xawmo sax ne da nga and ak Macky Sall man tamit maa ngi nii ànd ak Macky Sall sama koñ. ci la ma ne mais comme yow Amadou baa nga liggéeyal man mënu ma la wax nga bàyyi Amadou Ba ñëw ci man jàppale ma Mamour nii la ma ko waxee parce que c'est un de classe da ngeen ko xamul rek du warkat bul bàyyi Amadou Ba pour man ma ne ko non ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma ñoom ñoom baara na pare naa ci ñoom parce que dañ damaa liggéey ak ñoom deux ans ah lekk nañ sama xaalis li ñu waxoon defuñ ci dara ma ne ko yow mun naa mën naa la jàppale noonu laa commencé ak Mamour Diallo ci affaire 94 milliards yi. mais commence job ak mais Sonko le 31 décembre 2018 xaw 2018 ba ko Pape Alé Niang recevoir ci émission ci la top 2 heures temps ma déglu Sonko pour la première fois ci la né nak ki borom bop la luma ko contre contre contre ki mom borom bop la temps yi Mamadou Diallo laa gisuma fenn fumu mu ci interview 94 milliards daal la xaw hésité bañ ko ne sa sa sa sa compagnie nu mu tudd Atlas mu fàtte mu fàtte compagnie ak Mercalès loolu laa wax mais ma ni kii borom bopp la waaw léegi 2019 ma liggéey ak Mamour def naa 2 millions fële defaat ci yeneen 1 million muy 3 millions yoo xam ne def nañ ko ci Macky Macky gagné 2019 dafa sàcc ak sàccul sama yoon nekku ci dañ ne après dafa sàcc kon man bokk naa si ñu ko jàppale même bu dee dafa sàcc si 2019. mais ni ñu Amadou Ba trahiré noonu la Macky Sall aussi trahiré Mamour Diallo ak ñun ñi doon liggéey ak jàllo Diallo mu dàq ko impôt demet dàq ko Mamour nag toog sonn ma ne ko man bàyyi naa ñii nag man a ñii waa affaire yi nag ay nit nag ñii duñu ay nit bàyyi naa Macky Sall mii daal use day da lay use waaw ñii duñu ay nit ci laa ci laa ne Mamour nag bàyyil bàyyil Macky Sall sinon di nga am problème Mamour Diallo dëgër bopp ma ne ko man nag ci Sonko laa jëm parce que tamit nit ki boo juumee nga xam da ngaa ah dégg kii ne ma yow yaa financé xoolal xoolal leen seen waxu dof bàyyi leen seen waxu dof dégg na ma nee na yow yaa financé Macky Sall dégg nga <laughs> mooy financé Macky Sall Macky Sall ay milliards la yor bàyyi leen waxu dof Macky ni mu leen naxee 2012 ba ngeen fot ba nga votal ko. noonu la jaaree sama kaw man tamit ba ma xotal ko moom waa APR loolu moom dama koy assumer moo tax ma ne la ñun ñoo tooñ suñu bopp ndax ñoo ko fal li tax ma indi point bi li tax ma defal leen historique bi yëpp mooy ne xeex bi du contre Macky ndax ñun ñoo meres ñun ñoo ñun ñoo dof ñu tuur lii lëndëm jaar suñu kaw waaye nag man fa laa wuteeg Mamour Diallo ba ma demee ba xam ne gars yi dañ ñoo nax lekk suñu xaalis perte suñu temps sàcc suñu élection man au moins bàyyi naa man yàlla daf maa suturaal parce que xam nga tamit nit boo nekkee nit ku dë nitu dëgg yàlla da lay génne ci lu dul dëgg man yàlla génn na ma ma ne Mamour bàyyil Mamour bañ ci la affaire Adji Sarr nag daal di ñëw ci la affaire Adji ñëw Mamour nag mer parce que liñ ko dàq Mamour liñ ko dàq benn obsession la amul nan lay def ba duggaat parce que maam yi dafa nekk ci système bi nekk directeur de domaine di laal xaalis bu dul jeex ñu xëy benn jour bi. mu bëgg nekk maire Louga léegi obsession bi mu amoon nan laa mën a def pour wan Macky que ne man dama war a ñëwaat pour nekk ministre sax affaire Adji Sarr bi nag Sidi Ahmed Mbaye daa di Adji Sarr ne ko man daal man maay maasi Sonko Sidi Ahmed Mbaye jël information bi ni lii xéwal la ba mu wootee parce que Sidi Ahmed mënoon na ko jox nijaayam xaw ma papa Maodo Malick Mbaye ndax kooku APR la bokk mais xam naa ba mu demee ci Maodo Malick wala mu dem ci waa APR ñoom ñoo ne ko déedéet da ngay xool ki nga xam ne Sonko tooñ na ko muy Mamour Diallo nga yóbbul ko sii bi. kooku lii dina arrangé Mamour Diallo Sidi Ahmed nag ci la demee ci ci la contacté nag Mamour Diallo Mamour nag ba mu gisee loolu mu ne lii fii lii xéwal la lii moom su ma ko defee ba détruire Sonko Sonko bi nga xam ne moo menacé Macky Sall ah parce que Khalifa Sall euh, yóbbu nañ ko teer euh, Karim mi ngi euh, euh, euh, Qatar Sonko daal moo fi nar nekk problème pour Macky xaaral ñu détruire Sonko Mamour noonu la doon jéem a exploité waaye xamuloon ne lii mu dugg dina ko indil problème bi mu am ba ñu taal këram benn yoon am nu ñu ne moo taal këram deuxième fois bi ñu songu këram yaayam gaañu ci benn semaine ci mois de mars boobu ña ci benn semaine yaayam gaañu na ci maamam gaañu na ci bu xamoon ne. bu duggee ci ci complot bi li la koy indi xeyna du ci dugg mais man affaire naa ko nee ko bayil Macky Sall su su ma déglu Diallo su ma déglu dal tay du ko dal ndax di da ngay gëm Yalla lan moy poste lan moy ministre lan moy ay millions yow am nga kër Tiwaawan bo xam bu boko jaay mën nga ci am 300 500 millions am nga kër euh, euh, euh, Louga te leer nga ne Dakar am nga fa ben kër man Dakar am na kër bu mo wax amna am fa du len wax quartier bi mais man leer na ma almadi sax xam naa ne am na fa kër ak yeneen yoo xam ne waxuma ko parce que tamit nit loo jël sa secret yëpp nga wax ko nit kon bu la Macky Sall dàqee yow nga nekk fonctionnaire def ko presque liggéey 30 25 ans 30 ans doo gëm yàlla nga bàyyi politique ah nga ubbi sa business mais non non il faut nga détruire détour ko fayonti baaxul moo la indil nag problème yi mu am tey Mamour Diallo dugg mënutul génn Mamour Diallo loolu mooy problème dafa dugg yaakaar ne mënutul génn te ba léegi mën na génn de mais moom dafa jàpp ne comme ko def nañ ko euh, onage mënutul génn gars yi gën leen laaj gën leen partage li tax ma leen defal historique bi dama leen bëgg wax ne man man faale wu ma Macky Sall ndax ñu ñoo ko fal 12 ans mu nax ñu Macky dafa jaar suñu kaw billaahi wallaahi taalaahi dafa jaar ci ñu kaw depuis 2012 donc c'est-à-dire c'est un politicien boo xam ne. Sénégal kenn xawla xalaatul woon ne mag ki ñii la mel ñii la mën a manipuler ndax ay nit di la dig di la dig ñuy gëm en émergence ah di tabax te parce que mag ki day defar loo xam ne da koy gis mais li nekkatee li muy lay wan yëpp da koy def nii rek lu ko sax eggali ay terre projet yu ngand nga gis ko jam ñaajoo way dañuy defar beneen ville nekkate loolu yëpp ay naxabaay la mais balaa Sénégalais di yow c'est trop c'est trop tard parce que dix ans dafa bëri kenn ñemewul yëngu te te kat Macky bu bu bàyyi woon Sonko mënoon na continuer noonu kenn du yëngu mais Macky moo defar Sonko surtout yow mi ñu lekk mais 3 millions du dara 3 millions yi lekkuñu ko Amadou Diop bul wax ne dañoo lekk sama 3 millions parce que man man bu may def nit yi moo tax may def 3 millions yi lan lañ ko lekkee lan laa def dama jënd dama defar euh, euh, meeting. meeting da ngay def da ngay def da ngay jënd ay jus da ngay louer ay chaise mais loolu. booy xool Macky lekk ko sax ndax si HLM la dem HLM la dem sama gox sama gox laa def activité ndax koñ ki ki jàkkaarloo ñu fa laa dem luwee ay chaise xaalis bi si kooku lu dugg ah fi may dem di jënd ay t-shirt fi ma defaree ay t-shirt sama koñ la sérographie benn waa ji fa nekk ma fay ko xaw ma cent mille xaw ma kon xaalis bi si sama koñ lu dugg ah micro yi ma luwee ki ma don animal est ce que comprendre kon du questioner mak mo lek sama xaalis parce que tamit nit da ngay gëm da ngay gëm yalla la moy 3 millions tay ma ngi ni nek fi di may may na fi 500 millions semaine passée mais dama la bëgg wax né ñom bu jé ay gor lañ waru ñu tok sax man di ma menacer man Mister Shake ak lu ma mënti wax mak sala waru ma menacer mais suma démé demee ba ne la man mii mënuma dugg Sénégal nga xamné ñi duñu ay nit demba amna kuma menacer ne ma yow dañ la interdire Sénégal demba amna kuma menacer ben wa APR bind message ne ma dañ la interdire mais xam nga ñooñu buñ doon ay nit ak man lima leen liggéeyal li leen ñu lek sama xaliss nax ma te vilipendé wu ma leen maa ngi koy dogo wax léegi ni te ba légui wu ma euh, euh, euh, rakku Amadou Babé Abbas dam leen wax rek wax ah Macky mo défar Sonko c'est-à-dire Macky bu muusoon Macky dafa wara sax mere Mamour Diallo Macky dafa war a mere Mamour Diallo parce que dafa naan dafa war a Mamour Diallo yow yaa tax Sonko am doole ndax bu duloon yow du ma fi nekk nan damay jéem a jàpp Sonko le 3 mars ba sama nguur yëngut Macky moo créé Sonko mais Macky bu gëmoon yàlla rek bàyyi Sonko mu toog fi mu toog yow askan bi du am dara du am Sonko day isole nekk député di xaar 2029 wala 20 loolu mais la fait que muy jéem a tëj Sonko mu indi. man gay man su wara dem senegal damay dem senegal mais dama la bëgg expliquer né man defuma fi dara defuma appel à l'instruction mais ça dit ñom dafa am ben virus bu bees képp ku am baat di wax nit ñi di la dégg nga né da nga contre troisième mandat ci lool rek lañ lay tej man ci lool man buma buma démé fofu lañ may yappé dé man duñ ma japp man dama gëm naa dañ may agresser ndax man américain la lu bon bon buñ ma jappé dañuy indi sen bop problème parce que citoyen américain tamit du ñëw rek nga japp ko non même ñoom même bu ñu la jàppul mën nañ la fëgg juróom-ñaari bal wala ñu agressé la est-ce que nag may dégg c'est-à-dire cest il faut ngeen comprendre il faut ngeen comprendre ne man Macky Sall kenn tooñu ko moo tooñ boppam <laughs> moo tooñ boppam bu bàyyi woon ko mu toog man événement mars yi c'est-à-dire gars yi man duñu ma déglu Mamour Diallo duñu ma déglu saway man dama meuna analyser machallah allah jang rek la mënoon premier la dañ jël laa jël Mamour Diallo man bama ben yon la laa redoubler muy premier muy muy CM2 te Yo Dakar la don jangé sama papa jëlé ma Dakar yobuma nak jox ma sama ci région yi sama benn ndiyaay fofu la commencé jël premier depuis CM2 ba ba université sax premier rek premier premier université sama dernière année premier la jël. damay am sama maîtrise est-ce que na may dégg premier ci lañ ma jox bourse ma ñëw damaa mën a jàng damaa mën a analyse événement mars yi ba mu amee dama li ma njëkk wax Macky Sall mooy Sonko mii bàyyi ko boo leen samay live di ngeen ko gis live février le 6 février defe naa la commencé live le 6 février le 5 février la ñu la ñu la ñu bëggoon ne Sonko day wuyu par force gars yi génn da nag lu dem kër Sonko protège ko foofu la makk yàqule boobu moo ne première défaite Macky le cinq février Sonko dañ ko convoqué gendarmerie capitaine Touré convoqué gendarmerie Sonko ne duma dem parce que dama am immunité Macky Sall ne day forcé booy ji nag dem kër Sonko nag bi xeex ak moom Macky foofu la waroon bàyyee Sonko ci laa def live le 6 ma ne Macky Sall maa ngi lay digal côté yooyu bàyyil mu jàll ndax Sonko bi même bu dee li ñuy wax dëgg la ne da nga am ay vidéo ci moom. jëlal vidéo yi nga téye ko nga woo Sonko ci pet nga ne ko sawaay tegal lépp ci suuf du ma la jàpp du ma génne vidéo mais tegal lépp ci suuf mais Macky Sall dafa bëggoon détruire Sonko parce que dafa tiit bëgg troisième mandat gis danger bi Sonko di représenté mu ne kii am naa occasion pour ma rendre ko xaar ma rendre ko mais man temps yi dama doon Macky combat bi mënoo ko gagné bàyyil mu sedd Sonko du dara kenn xamu ko mais mu dëgër bopp ba léegi nag Sonko ñëpp ko xam Kémi Seba Al Jazeera ñëpp di filmer événement Sénégal yi ci la Sonko nag amee doole ba léegi kon ñun Macky moo tooñ boppam ñun tooñuñu ko buy mere ne mere boppam wala mu mere Mamour Diallo te ba léegi mi ngi koy continuer saa yu convoqué euh, euh, euh, Sonko tribunal day indil boppam problème mais Macky muus na nag ci benn côté bàyyi na waxu rey Sonko bàyyi na waxu tëj Sonko mais Macky commencement dafa ne damay jàpp Sonko ba par force ñoom général Moussa Fall ñoo dem ba changer système ci moom waaw ñoom général Moussa Fall ñoo dem ba ne ko saay jëf yi xam na la nañ ko nañ ko bàyyi mel na dañ koy jàpp waaye duñ ko jàpp nañ ko sonal du def ne meeku tuwa xam nga yow askan bi ñu jéem ko tas nax leen bàyyi leen ñu am tuuti député ma li yëpp annoncé woon naa ko ne naa leen municipal Macky Sall daal koy sarax saa yi nag damaa mën a analyser saa bu du foot boppam man waxoon naa leen municipal yi Macky Sall da leen koy sarax billahi wallahi taala am na lu muy demee sax mu sarax leen euh, euh, euh, législative yi te ni ma ko waxee noonu la am municipal yi Macky Sall bàyyi Sonko nekk Ziguinchor maire Macky leen ko intéressé troisième mandat ay maire Dakar yi nee intéressé nee ko parce que xam na ne bu Barthélémy nekkee maire bu ko neexee mën na nanguwaat mooy nangu budget bi mooy téye xaalis bi da leen saxal tàngal bàyyi leen ak maire yi bàyyi leen ak ah, euh, député yi gis nga député yi sax ni mu def ah Matam ñu fexe ba changé foofu gagné dama mën a analyser lii yëpp waxoon naa ko billaahi du ma je ne suis pas comme moom day fen waxoon naa leen ko wax day duul waxul dara Mollah moo fi waxoon 31 décembre Macky Sall ci lay annoncé candidature am moo ko fi ci day Macky day profité ci euh, benn làmb xam nga xam nga kan ma waroon bëree le 31 ci lay profité nelawal leen après mu ne day def candidat ma ne ko waxoo dëgg ma ne ko Macky Sall du mës a wax damay def troisième mandat nekk te Khalifa Sall waxoon na ko tamit bu yàgg ñëwoon naa leen Macky day bàyyi ba parrainage jot rek mu ne bokk naa du mës a dem conseil constitution loolu waxoon naa ko wala waxuma ko li ma fi wax yëpp day am te dinaa la wax beneen affaire ba mu toogee Pa Assane Gueye dafa ne yàggatul léegi mu annoncé candidature am wax da leen di nax de yàggatul c'est-à-dire Macky dafa neex quoi Macky Sall ak a neex nee na yàggatul dina ànd dina wax kañ lay bokk dina bokk wala du bokk du ko mës a def nappel bàyyi nañ ko affaire nappel bi bàyyi nañ ko parce que li Sonko génn wax révélation lu gaaw gaaw ñu bàyyi euh, euh, Babacar Touré parce que xam nañ ne affaire nappel bi moom sañu ñu naan dañuy convoqué Sonko ci affaire nappal ak Sonko limu genn génne Mame anamu mom mi ma tuddé le marocain anamu dafa leen di laaj ana Mame Mbaye Niang où est le marocain ken déggutu ko bayyi nañu affaire Mame Mbaye la la leen di ko wax bayyi nañ ko tamit say dama mëna analyser man ba juge Ngom yaqé sen deal juge Ngom ba mu yaqé sen deal le juge euh, Mamadou yaham Ngom. nu mu tudd Mamadou Yaxam Keita damaa juum gars yi gën leen laaj gën leen partage ba mu yàqee seen diil ne Sonko day bokk ci laa leen ne c'est fini c'est fini Macky Sall dina bàyyi Mame Mbaye Niang xëy na nag Mame Mbaye ak procureur yi ñoo def forcing ba indiwaat cas sax ba ñu defee appel sax man daf maa jaaxal parce que sama xel jax soowaatoon na mais léegi boo xoolee ni ñu tekki tekkaarale Mame Mbaye waxatul Sonko génn ne du ma fay fukki dërëm Mame Boye tontuwu ko bàyyi nañu Mame parce que tamit quand même nañu waxante dëgg amatuñu benn juge bu nangu jël kaaw Mame amuñu ko waxoon naa la ko tamit moo tax Amady Diouf mi nga xam ne mooy juge jël kaa te moom procureur la woon ci affaire Adji Sarr affaire Mame Mbaye moom moo ci yokk usage faux et usage de faux moo ci yokk injure publique xaw ma ba pare nga bëgg juger cas moo tax affaire bi dafa ñëw rek mu renvoyé ko d'office mais le huit bu ko renvoyé d'office dafa ndoroon ñëw lan la ndara def gars yi nekk sax nekk sax duñ la fi sax xaar ngay def dara ñun suñ bopp ñoo dugal appel parce que yoon mayoon nañu ba le vingt Sonko daf ko waxul rek mais dafa mel ne daf nañu appel xam naa nag dañuy bàyyi le parce que Sonko le huit Ziguinchor lay jëm léegi laa ko gis seen web le huit Sonko du sax nek Dakar mi ngi short parce que dafa dafa convoqué ben réunion fofu ak mairie bi conseil municipal kon désobéissance civile bi mu doon wax dafa melni dafa ko commencer parce que le huit en tout cas xëy avocat am dinañ dem mais Sonko du dem li tax nak ñu indi indiwaat affaire Adji Sarr di nappe ndax boudé da nga indi affaire Adji Sarr kay da nga war yobul Sonko convocation mais dañuy sondé. Macky Sall lépp lu muy def danaan xaaral ma essayé bu nooyee ma continuer Barthélémy waxoon na ko Khalifa waxoon na ko Macky day essayé dara bu nooyee mu continuer bu dëgëree mu dellu ginnaaw. Adji Sarr bi dañoo sa euh, observateur la ñuy jël mu bind observateur mooy génne information yi bu ko génne génnee Seneweb reprendre ko et ab Adji Sarr convoqué nañ Ndeye Khady génn ne jotuma convocation li mu wax moo tax ñu yónnee ko convocation Sonko. mais avocat am ci boppam il y a deux jours maître tal maître tal mo toog ak euh, pap Ngañ mune jotuma convocation dañuy dañuy nappe légui nak bu jotuma convocation Sonko guenné ne ñun ñoo wara wax ne Sonko dafa waroon guenné demuma kat sa gat sa terminus mais Cheikh Bara Ndiaye bu toogee di wax Sonko dafa wara a wuyu mais li nak dina tax nak ñom ñu dem yoni convocation Sonko parce que dañ nan Cheikh Bara Ndiaye Sonko moo waxal té boy set deug la. parce que lutax Cheikh Bara Ndiaye ne Sonko dafa war a wuyu est-ce que du Sonko mo ne ko demal nga waxal ma lolou lolou nak man bu amé bayina def live di wax ci affaireu Sonko man damay bay parce que man ken duma ma a fayda boy xex da ngay xeex boo mënul xex nga bayyi ñu note la mu jeex bu len ñu sonal Macky Sall bu mo len upp fulla upp len doole dàq leen politique di leen tasaare di xëcc ci ba fii di xëcc ci Khalifa fii di tëj Diomaye Faye numéro 3 nit dof bokk ci Pastef 3 mois 4 mois ci prison bi kenn même Ndiaye Ndeye Leer sax dégg naa jàpp nañ Ndiaye Ndeye Leer xaw ma sax nu tudd kooku lan lañ ciy jàpp Ndiaye Ndeye lan lañ ciy jàpp jàpp nañ ko Amidia force spéciale dugal anibal Djim yo ya dajaleel khalis nit ñi kasso nongo job ya fi génn di kas kasso ngeen tok rek dambu ñu door ko set bal te loolu kenn du ci wax pour ñom dambu ñu ko door bal ni grawul Papa ali ñaan démb ba muy def réunion émission émission bu am solo la def barki dem xaw ma démb lu ne mu wax ko Macky Sall li muy jalkati mais dafa man ci lima deglu waxul dambu parce que mom waxna Fulbert Sambou bi ñu wax na Mancabou bu ñu rey wax na euh, euh, euh, Didier Badji bu disparaître mais dégguma ko mu wax dam Ibrahima Gaye day leer waaw dégguma mu wax ba dambuj bu ñu dóor set bal pour ñoom loolu c'est pas grave dambuj bu ñu dóor set mu rëcc pour ñoom loolu garaawul ak garaaw tentative de meurtre ak meurtre c'est la même chose ah jàpp nit ñi di tëj trois cent cinq cent personnes ñu ñuy ñaawal mat trois pon nekk ci léegi ngeen jeex léegi ngeen jeex waa APR dem ba am fulla am fayda ñun ñuy dellu ginnaaw rek Sonko ñu toj vitre am sotti ko mbir dañ kaa rey rey ko mais yéen da ngeen bëgg ñu kàr jàkk xanaa ah? ñun talatuñu liggéey talatuñ suñu jabar talatuñu dara nekk fi di live rek ah xeex boo xam ne boo mënul xeex da ngay déposer les armes Macky Sall ñu bàyyi ko mu continuer ba deux mille trente cinq bu jeexalee. mu jox Amadou Sall Amadou Sall continuer ba ila yow mi diin nit ñi noppalu ko comme ça makki sax dina arrêté tëj Sénégal ñu nek suñuy fonde nek suñuy nambe suñuy ciép yu wessé boucher di di walangan, ci ci ci mbedd yi mbalit di la ray courant di couper ndox di couper ñom ñu bayilé ñun ñoo leen fal ñu def ay bout ñu def lu leen neex sëriñ yi continuer di def seen magal ñu dem di leen ramal di leen signé pare guñu Sénégal pareegul pour libérer bopam du Sonko mo ñuy libérer ah man de ko xam Mister cheikh man lool moy sama message man faale wu Macky Sall faale wu ma Faye Sall iñaane wu ma leen lijjanti ñu tok Sénégal ak ñu baña tok Sénégal la yemale billahi wallahi taala man ko xam Mister cheikh ak fu sama par samedi de la ma sétat man faale wu ma man yalla la man man man damay gëstu man ñi dañ ma tardeel sax man dama nar a arrêté bi delluwaat temps bi may nekk fii di di di di ko consacré ci ay live ma dem commencé waat seetaan samay Netflix nekk ci jaww ji parce que parce que sama liggéey bi daf ma tënk ba ñu bëri sax dama kaa fàtte ci kéemtaan yi yàlla def ci suuf si xool leen xool leen ma fi ma nekk man yàlla daf may baaxee sama chiffre baa ngoog 44 minutes est-ce que yéen may dégg. man nit laa yërëm Sénégal laa yërëm mais man faalewu ma Sonko faalewu ma Macky la faalewu ma Marème Faye Sall bu doon sàcc ba illaa yow mi din sama yoo nekku ci parce que ñun ñu nekkee benn peuple ñu ñàkk fayda ñu bàyyi leen ñuy def lu leen neex mais ñun ñoo mel noonu démocratie lii mooy démocratie xam ngeen da ngeen ne Macky Sall daf ñoo daf ñoo xañ démocratie mais déedéet Macky Sall ci démocratie la nekk parce que peuple bi ñi ngi gis li muy def ñu toog seen kër ça veut dire ànd nañ ci te la preuve segment boo dem ah segment boo dem am na ñu ñu ñu nekk fa di di défendre Macky Sall boo jëlee journaliste yi nga dem Seneweb ñu invité Cheikh Bara Ndiaye di ko poser ay question yu bizarre Macky Sall la ñu àndal nga dem ITV dina fa am ku mel ne Didier Boups di wax ne Sonko moo ne woon Macky Sall xaw ma lan mën na bokk wala bokk nga dem RFM TFM. téléphonal Macky ñu ne mooy téléphonal Macky ah nga dem ci yenn émission ay 2S Pa Bécaye mbay ah nit di wax ci Sonko mu ne coupé leen mu micro ah Pa Ablaye Mbaye peex gis nga ni mu mel nga del nga dem ci secteur mbari secteur mbari koo fay gis di gis ku mel ni Siteu ñu ne dafa dafa dafa euh, contre euh, Macky Sall cest dire secteur boo dem dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañu ànd ak Macky Sall nga dem ci euh, rappeurs yi ñom ñom ñom ñom gax ka blende dañuy leen leen dañuy duggal ben tank genn ben tank xex jotagul li moy démocratie Macky Sall ci démocratie la nek de waaw ndax mi ngi tejj ni ñangi dé ni ñangi ñaa ngi disparaître gars yi nangu ko ça veut dire que la majorité dañ ci and bu ci majorité bu àndul dañuy genn ñu andu ànduñu ci mais majorité bi warul xaar ben nit di len wax genn len def len li def len li loolu démocratie te nit kooku sax bu wootee gars yi du ñu génn ndax la 16 ba mu nee gars yi góor génn la nga gunge ma ñu bëri génnuñu affaire bi du Macky peuple bi ñoo yeewoogul billahi wallahi taalaay boo leen bëggee affaire bi du Macky Sall du Marème Faye Sall du Amadou Sall mais ñoom seen rôle la ñuy joué Youssou Ndour rôlam lay joué ñoom nag bu dee yàlla daf leen nattu mu jox leen ay milliards seen xel toll foofu man bu ma yàlla defoon président Macky Sall lu mu def du ma ko def du ma toog di gis samay ministre ñuy sàcc ba léegi wóolatuma sax bu ma amee ñaari ministre yu bàyyi wóolatuma sax jël ñaari ministre yooyu ma jox ko yeneen nit dama jël lépp ma jox Amadou Sall Amadou baax ministre sport ak ministre artisanat réew mi ñoo ñoo ko yoroon bàyyi Macky mënoon na jël yeneen ñaari nit affaire mu jox leen mais wóolatul parce que ñëpp ay sàcc lañ parce que xam nañ ci fin compte fin mandat la nekk bu ko joxee ay nit yu bees dañ naan sii neuf mois moom des xaaral ma sàcc li may sàcc man su ma doon Macky ma nekk président lu muy def du ma ko def mais xel yi ñoo yemul li ma xam ci àdduna li ma xam ci yàlla li ma xam ci ne àdduna amul solo kat kat du dara jigéen du dara maa ngi nii sama jabar Covid bi dama toog deux ans gisuma ko mais dama ne am na santal yàlla am na lu muy demee sax doo ma gis parce que gis naa fi ñu bëri ñoo xam seen jëkkër dee nañ fi wala seen jabar dee nañ yalla def ma gissat ko un mois mais un mois lig ma ngi wat fi est ce que dina gissat sama jaba yalla rek a xam man fi may defé live bato bato bi meuna exploser ma dé man damaa wuteeg Macky Sall dama len raw spirituellement man matériel teunkuma ma nguur aduna teunkuma ma Macky Sall nguur aduna moko ko tëj ak matériel président jot la mi ngi ni dugg ci avion wara dem Angleterre. ah jot la man jot boobu aw ko jot nekk président fu ne nga koy tambaabal nekk ci ay réunion fii dinaa la lii nga war a def da ngay xëy benn jour rek màgget président seen vie day gaaw Macky saal li tax bëggul bàyyi nguur gi dix ans yi day amee xaalis adduna bi day gaaw xaalis nattu la milliards yi day dem ba du la saf dara ñoom Marième Faye Sall la mooy milliard ñoom xaalis teetu leen ci réew mi mais noot nit ñi ak fu ñu romb ñu leen di garder di leen toggal ah, cortège ah fi ñu dem ñu xal leen yoon ñu am seen avion bopp am seen batu bopp looloo leen neex mais dootul xaalis léegi man li Cheikh Bara Ndiaye waat naan Macky Sall day wàcc 2024 loolu dara wóoru ko ci affaire baat yi ñuy wax dañ ko jël ñu teg ko fële dara wooru ko ci ne Macky Sall day wàcc 2024 dara wóoru ko ci. budon doon loolu tubaab bi bam mu fi ñëwee tubaab bi ba mu fi ñëwee lakal ñu lutax suñu sëriñ yi utiliser wuñu batine pour notre tubaab bi c'est-à-dire gars il faut que ngeen dir il faut ngeen di réfléchir lépp lu ñu wax rek bëgg ci indi ay affaireu batine ay affaireu li ay affaireu la waaw ay tapis rouge ah nek ak ay président Macron ñom looloo lañ ci neex nek personnalité mais li tax ñu top ñoom li tax ñu toog parce que dañoo gis ne Sénégal yi dañoo ànd ak ñoom man mii di wax ak yéen sama famille am na ñoo xam ne dañoo ànd ak Macky Sall te pourtant man maa ma tuddee sama bopp njaago Sonko yéen ñii di wax ku ci nekk boo xoolee ba xool sa koñ am na ko sa kër am na koo xam ne Macky Sall la faral àll bi yëpp Macky Sall la ñu faral parce que xamuñu lu xew la moo tax Sonko bëgg def nemmeeku tóor ci àll bi mais Jomaay Fay Jomaay Fay fi mu dëkk dañ caa gañee séeréer yi te ñoo gën a sonn ñëpp. c'est-à-dire yéen xamu leen lu xew affaire bi du Macky affaire bi du Marième Faye Sall affaire bi sëriñ yi la mentalité làppoto te loolu pour mu dindi ci pour mu denc ci réew xam nga lan moo koy mën a dindi il faut que mu am benn événement catastrophique boo xam ne mooy jékki-jékki rek yee nit ñi nag dañ nekk nekk te ñun nag ay ay ay ay dëmm ay nooxóor ñoo nekk ci système bi te loolu Sonko la mën a jaar. danger sont le Sonko di représenté pour Sérigny ak pour Macky Sall danger bi Sonko pour Sérigny, et le système moy nit ñi gëm Sénégal demba li fi nek di di waarate amna kuma bind mu ne ma yow li ngay wax gëmo yalla alcorane wax nga di voilà le Sénégal Yalla. yàlla ajjana yàlla ajjana moo ñu tënk moo ñu rey billahi wallahi taala xool leen tubaab bi tubaab bi ba ñu xamee sëñ tubaab ba ñu xamee tubaab dafa muus ba ñu xamee ne sëñ tubaab dafa contrôler nit ñi am ay taalibe yu bari yoo xam dañ ko topp ñu xam ne bu ñu reyee sëñ tubaab taalibe yi nag seen yaakaar benn bi ñu desee ah loolu mën na indi problème moo tax reyuñu sëñ tubaab

buñu ñu Sonko ci la nit ñi di yew ci né l'islam jarul top ngeen bal ma ci ni ma ko waxee sëriñ yi bokk top topp tarixa jarul aduna bi il faut que ah nga jël affaireu yalla nga tek ko feulé comme tubaab yi bo bëggé avancer affaireu aljana affaireu yalla yàlla koy jël nga tege ko nele bu ko def ni la ko sëriñ yi waxé defal ko sa bop buñu Sonko ci li nit ñi doga yow imagine le. Murid yu bari sonko lañu andal ku ko wedd demal mbacke da ngeen fatali xew mbacke ba seigne abdou khader tit seigne moudou kara tit di wax li am musuñu ko gis ahmed khalifa ñes tit ba porter plainte sonko ndax sonko dafa dem kawlak khalé talibé yi top ko mune li def violation de domicile la dafa ñew sama kër té invité wu ma ko sama kër khalifa dañu tit parce que talibé muy tidiane

seen xalif général munoon na jël aaya munoon na jël munoon na dem dugg xawla xalwa dama leen di wax rek dem ñaan yàlla xalif généraux yëpp nag bu ma kenn yóbbu kër yaa ma tax lu tax ba dëkk bi ndar tàkkee le le 3 mars xalif généraux yi dem ñu dugg xalwa ñu ne yàlla sotti ci ndox mu sedd lu tax defuñu ko. dañoo yónnee ci Seydina Sonko mu sell mi sama chiffre bango 44 ci Seydina dañoo yónnee délégation ñu saraxu ngeen baal ma ci kaddu gi lu tax dugg ñu xëlwa ñu jël toog trois trois nuits wala sept nuits lekkuñu naanuñu jàkkaarloog suñu borom ne lii la ñu bëgg defal ñu ko parce que munul am il fallait que jaar ci nit ci benn nit. Mu sayidina Ousmane Sonko mu sell mi bañ ko ñaanee sayidina Ousmane Sonko mu sell mi moo set mo jël ndox mu sedd mu sotti ko sino dekk bi jeppet la ndoron def te dekk bi bu newon jeppet coup d'état mën na am terroriste mën nañ dugg magal Touba jeex màggal won jeex lepp loolu lañu xam sen taranga jeex dekk bi ndax dekk bu am militaire mom gis ngeen li am Soudan moo tax ñu dem ci Sonko mu sell Sonko mu sell mi ne d'accord wa buñ ñu 2 deux ans xam Sonko di woté cinq mois mënu jot ñuy tej Sonko ñu ñukay téré waxul ay nit di en di affaire bi du Macky Sall affaire bi c'est pas disparaître kenn waxul nous ñu fukk ko ñaari bal sëriñ waxu ci tej 500 sénégalais te Sénégal yi ay ay ay taalibe lañu 500 sénégalais yëpp ñëpp ay taalibe lañu soit ñii ay murit lañu ñii ay tijaan lañu parce que sénégalais il faut nga am foo bokk wala nga nekk chrétien est-ce que dégg ngeen abe abbé euh, mu génn mu wax ci kenn wax ci te ñu wax ci Sonko yow dimbali ma nga naan ma bal ci wax Màggal Touba yow yow sa marron beige yow xam nga ne yow yow ku la gi xool xoolam na xam nga ne APR la est-ce que dégg ngeen ñu wax ci léegi nag loolu yëpp Sénégal yi mën nañ ko muñ de waaye bu ñu juumee ba rey Sonko ma la sax rey téye ko mais surtout rey parce que téye ko ak rey ko c'est la même chose Sonko bu ñu ko jàppee li ñu njëkk wax mooy empoisonné o rey nañ ko pikir nañ ko dee nag c'est fini laa ilaha illallah xanaa da ngeen fàtte le 3 ak 6 euh, jours yi ñu ko téye 4 heures du matin ñu jël si ko di set ana Sonko ana Sonko lu gaaw gaaw am na benn jigéen bu génn mu ne Sonko summi nañ ko def nañ ko li loolu mooy danger Sonko bu ko jàppee bu ko jàppee rek sos si commencé wuy summi summi nañ ko yóbbu nañ fa Adji Sarr foto na leen ñoom ñaar wuy pikir nañ ko wuy def nañ ko li Sonko jàpp ko ak rey ko sa même chose waaye bu deewee ba ñu gis néewam taalibe yi si la ñuy bàyyi Serigne Mountakha yu si bëri bokk parce que tañ dañ naan vraiment. sëñ Mountakha dafa ne woon moo ñu ameel bor ba pare ñoom ñu seetaan ñu rey Sonko moo tax ma ne Sonko kenn du ko rey Sonko lu ko neex na def Sénégal kenn du ko rey Macky Sall su ma doon moom xëy na li muy wër Sonko xëy na koy garder <laughs> pourtant Sonko loolu la waxoon ne ko jàppee ci tunnel bi dafa ne waa GIGN dañ ko doon protéger su ma doon ki damay protéger Sonko ba du dee jaajëf Fatou Kiné gis nga Sonko bu deewee. ci la nak sénégalais di yeewu nag am mentalité tubaab xam nga tubaab lu tax sen sen aduna tay rek dafa am ben démb rek dafa am ben gel bu doon wax ak ma mané ko am lañu wax ba mané ko buñu buñu bu benen monde biñuy nek mune ma benen monde amul américain lolou lañ def noir la de xale xale bu ndaw 23 ans mune ma. boo deewee rek c'est fini ñoom loolu lañ gis ñu nga tubaab bi ak américain yi kii yoo xam ne damay sóob damay sóob damay sóob ci la gis nga tubaab yi ak américain yi xam nga lañ jóg quatre-vingt-dix-neuf jours rek jeex mais imaginez leen oh il y a des bruits là pour xalaatee noonu mënoo ko wax yàq àjjana mënoo ko wax wax safara kooku danaan àdduna bii rek laa am bu jeexee jeex na kon naa fexe ba am kër naa fexe ba am kat yàq naa fexe ba am jabar naa fexe ba lekk naa fexe ba wér mais yéen gars xaaral ma déplacé wu fii ça va pas jeex trop de bruit mais côté bële nag dafa mais yéen li ngeen gëmloo mooy àjjana àjjana liñ leen gëmloo ak safara démba ngeen baal ma démba am na ku ma wax démba am na ku ma expliqué mu ne ma gaay baal leen mu ne ma waaye li ngay am yow da weddi alxuraan ndax alquran dafa ne aljana bo fa nekké nga yor ci uuru ay nii da ngay lek do sour lolu amul lek do sour amul fenn da ngay nan do mandi amul fenn nan kay buñ ci wax li tax mu neex mandi bi mo ci neex man musuma mandi na champagne mom buñ koy wax mandi bi mo tax ñu koy wax yamba bokoy mandi bi man musuma yamba ba mandi musuma ko def musuma tok yamba sax lay wax duma kenn yobbu yamba tax duma tok duma nan waye nan buñ koy wax mandi mo ci neex sey buñ koy wax ejaculation moo tax ñuy wax mais di ma wax aljana bo fa demee am kuma bind dem boy sey ak sa jigen jigen uuru ay ni do daan ah da ngay kon kan mais daanu bi motax affaire bi di sino do arrêté do nopi boo daanuwul da ngay continuer rek nekk ci daanu bi moo tax moom la wax orgasme c'est le summum du plaisir maanaam plaisir fi mu gën a neexee foofu ngay wàccee foofu ngay daanoo kon di wax ne àjjana da nga fay nekk rek nekk ci xale yi di di laal rek gaa yi ngeen baal ma yeewu leen lappatu Sénégal yeewu leen ngeen mel ni tubaab yi ngeen réaliste ngeen mel ni Macky Sall ngeen pragmatique mais di leen nax di dem ay umra di di leen sóob ñoom dañoo réaliste dañoo pragmatique affaire bi du Macky Sall société sénégalaise ñoo war a yow Cheikh Bara Ndiaye bu nee Sonko dafa war a wuy ji anduma ci tey anduma ci ëllëg Sonko bu tegee tànkam tribunal affaire Adji Sarr wala mu yónnee fa ay avocat ñu naan dañuy am lu ñuy expliqué lu ñu dul expliqué man bàyyi naa billahi wallahi tàllahi parce que tamit gor ca wax ja terminus nga ñu wax gor sa wax ja yow ya tok keur massa nga def ben discours bu extraordinaire Semi Keba di la ci féliciter Nathalie Yamb di la ci féliciter nga affaire Adji Sarr af fayda du ci dugg terminus léegi nga wax terminus ñu commencé la woowaat nga bëgg dem fofu nan da ngay tok ak Adji Sarr ci affaire bo xamni ñepp xam nañ ay kàcc kessela xale bi ci boppam génne audio ne lii lii yow nga ne yaa xam maa xam yaa xam Diallo warul woon dossier boobu waruñu ko woon soo ko yaa ko wax mais yaa ko wax ah dégg kii naan ma franchement pas trop trop mais affaire de Adjana moom maîtriser woo ko woon moom Adjana man dama leen yërëm Amadou dama laa yërëm. mais avant may ma lay tontu naa eggali sama point bi may wax ci Sonko yaa ne terminus maa xam yàlla dafa jalgati waruñu woon def lii waruñu woon def laa désobéissance civile dootuma topp ci justice bi nga wax li ngay wax toog un mois kenn déggu la ñu ne waat Adji Sarr léegi nga ne da dem loo fay def yow affaire Mame Mbaye Niang sax waroo fa teg sa tànk waxutuma la ak Adji boo demul lan mooy am mais cest à nit boo amee doole te bëggoo utiliser sa doole. ñun ñoo fi nekk bëgg la xeexal mais bëgguloo ñu utiliser kon ñun ban njëriñ lañ la amal nit ki da ngay xalaat Cheikh Bara Ndiaye yaa dàq analyser waaye da ngaa daanu ñoo bokk HLM 2 de HLM 2 laa dëkk. yaa ma gën a garaaw ci affaire yu bari mais lii moom da nga cee da nga cee daanu te Cheikh Bara daf ma gën a garaaw ci yenn mais am na yoo xam ne gënu ma ci garaaw affaire ajana moom gënu ma ci garaaw affaire yàlla gënu ma ci garaaw affaire jaww ji gënu ma ci garaaw. parce que lima xam fofu xamuko batim bi ñi wax nak dina leer batim Cheikh Ab Baara Ndiaye bi dina leer parce que mom dafa ne Macky Sall day daanu 2024 mais on va voir 2024 yàggatul mais man limay wax moy ken duma tardel Sonko bo amé doole da ngay utiliser sa dole sa dole moy askan wi askan wi bo demul ci Adji sar lan mo lay dal dañ lay jàpp dañ lay éliminer déedéet boo demul ci ay dañ lay jël si dañ lay yóbbu dañ def vote nañ def vote bu Sonko demul est-ce que Macky Sall day day yónnee pour ñu jàpp ko yóbbu ko kaso nee naa déedéet nañ def vote dix personnes est que dañ koy jàpp nañ def vote gars yi gars yi gaaw leen Sonko bu nee ma samay avocat du ma fa teg sama tànk samay avocat duñ fa teg sa tànk est-ce que dañuy jàpp Sonko tontu leen man déedéet laa wax. kan moo gëm ne Macky Sall day yóbbu day jàpp ko ba wala mu ne doo bokk ci élection yi kan moo ko fi gëm nañ def foot gars yi dama leen laaj bind leen ma wii wala non que dañ koy jàpp boo leen d'accord dañ koy jàpp bindal leen ma wii boo leen jàppee ko jàpp bindal leen ma noonu lu xew mënu leen commenter wala commentaire dafa daw nit boo amee doole dangay xam da nga am doole xëy na yi ñoo yàq Sonko bu demul dara du ko ci fekk kii nee na Sonko dafa commencé ragal merci Khady Fall loolu lay nduru loolu lay nduru ndax ku toll ni Diomaye Faye ñu jàpp ko waxoo di euh, kii ñu jàpp ko euh, nit dof ba ñu jàppee nit dof la waroon Sonko waroon jéngu parce que kooku sa liet naa la ñu seetaan dafa mel dafa commencé ragal bu demul lu koy yàpp lu lu lu koy mais ñu yónni Cheikh Bara Ndiaye muy préparé terrain bi non dem parce que ay avocat am xam nañ li ñu war a def avocat yi ket ko fa def Sonko mu toog ak Adji Sarr rek loolu réussite la ci Adji Sarr Adji Sarr du ko gëmee Adji Sarr du ko gëmee gisu leen lettre bi ñu bindal Adji saar seen web mu ne ñun daal moom moo waxoon affaire bi il faut ñu atte ko kon dafa war a ñëw même bu ñëwee bu dee man maa tooñ ñu xam ne maa tooñ di di di ko jéem a meep Sonko bu tegee tànkam tribunal réussite la réussite la ci Adji Sarr defet bu nganda la ci ñun waxuma la Sonko avocat Sonko rek bu fa tegee tànkam vrai défaite la ci ñun man de bu fa tegee tànk wala mu yónni avocat billaahi wallaahi taalaahi waxuma dootuma def live de mais live di jàppale Sonko moom pare naa ci kenn du ma ñàkkal fayda ñu toog ñu dóor dàmboo juróom-ñaari bal kenn waxul ah Amadou waa xaar ma tontu la ragal lay nduru kay Amadou xaar ma tontu la neena na yeen bo len dewe do len gis luy nduru ak aljana do len ko gis billah man maa leen ko watal taala, wallahi ta'ala safara biñu wax amul niñ ko décrire ci islam amul bo dewe yalla japp la di la lakk di la lak di la lakk Amadou yow gëm nga loolu Amadou gëm nga loolu yalla mi nga xamne moñu defal may ñu ci ay pouvoir yalla na mara lu mu amul lu muy bëgg amul lu muy bañ kon japp nit di ko lakk lu tax parce que woru lo waxuma ne yalla du lak nit wala du parce que mi ngi ñu koy def instant mi ngi ñu koy def man waxuma ne safara amul le waxuma la aljana amul mais ni ko décrire ci l'islam di wax ne yalla daf ñoo chantage man lool la d'accordul yalla chantageul nit waxul ne nit ki boo julliwul rek dama lay lak c'est-à-dire yalla amul lu muy justifier la preuve ñun ci safara la ñu nek yeen fofu ngeen comprendre nu aduna bi safara la aljana la en même temps ñun dañu wara lacc lan lañu def est-ce que ñu won ay dundu yu njëkk ñu def dara ba yàlla teg ñu nattu may gars yi man fi may wax ak yéen nattu laa nekk ku toog di werante ndax ma dem Sénégal wala bu ma dem Sénégal loolu du safara yéen da ngeen yaakaar ne safara mooy taal lakk déedéet enfer safara mooy enfer mais olof daf olof moo yàq moo safara olof moo ko yàq parce que olof dafa ne le feu tubaab buy wax waxul le feu dafa ne enfer dafa am beneen tur bu mu ko tuddee waaw kay punition la merci Fatou yo comprendre nga mais Fatou man limay dund safara la aljana la en même temps ndax xol leen fi ma nekk ni mu rafete ajjana la waye bëgguma ci dara ndax chaque instant ma nga xool heure bi dama wara dem liggéey xol leen sama jabar ma bayiko 9 mois ngi ni gisuma sama jabar té leeruma dina ko gissat lolou du safara nga nek ci dëkk dëkk bi nga xamné moy sa dëkk amo fa kër ak Sénégal nu mu bëré souf man mënu ma fa am kër dama obligé génn di jébbaan ñi te man dama am chance ndax am naa liggéey mais sama morom yu bëri dañoo dee ci géej gi loolu du safara nga dugg ci biir bato gis bato bi di diig nit ñi di yuuxu te bato bi avant muy diig dañuy réer ci géej gi mën nañu réer une semaine ci géej gi xanaa yéen doo leen déglu booy bi ñuy nettali dañuy réer une semaine ci géej gi lekk jeex ñu commencé sax di am na si ñoo xam ne affaire dëmm sax dinañ ko fa def parce que boo demee ba amatoo loo lekk mën commencé sax commencé délirer comprendre ñuy dof sedd bi di leen rey safara moo nekk suuf instant bi may wax a yéen ñu nekk rëbës moom la ñuy dund am na ñoo xam ne ñu ngi leen di jam paaka fi mu nekk nii instant yi di leen torturer wax ma rëbës de ci àdduna bi des fois nga toog Amérique dégg ñu leen nit dugg na ci benn restaurant léegi tiire rey fa trente personnes loolu du safara Norvège xaw ma am na fa benn waay ju fa reyoon soixante-dix personnes dafa dem ci benn parc rek ay xale nekk fa di waa jooju bref mu tudd Andrei bref nit xaw ma métteem la yor mu massacré soixante dix personnes te moom rey ñu ko ne mi ngi mi ngi mi ngi prison xool leen Hitler nu mu doon def ni ñi chambre à gaz la leen doon yóbbu chambre dañu dugal ci juif yi dañu leen dugal dañoo bëri mu bëgg leen exterminer xamul ne lu mu leen rey da leen dugal ci benn néeg ñu nekk cinquante rek mu tijji robinet gaz yi ñu toog ci camp de concentration deux ans dañuy dem ba ba jeex takk yéen xanaa seetaan leen affaire juif yi moo tax ma leen dem leen Netflix safar euh, Netflix juif yi dañuy dem ba euh, juif yi dañuy dem ba jeex tàkk seen yaram yi seen yax yi sax dañ koy gis un an deux ans nga nekk ci ko camp de concentration joxuñu la ngay lekk joxuñu la nga naan ah américains yi bañ leen sauvé am na ci ñoo xam ne seen yax yi da nga leen doon ko gis nii boo leen demee Netflix da ngeen koy gis dañoo xiifoon ba bañ leen joxe lekk tellement dañoo gëj a lekk ñu profitoo lekk dee ci saa parce que seen yaram attatul woon lekk seen seen seen seen seen euh, euh, estomac attatul woon lekk bi dañoo lekk dee ci saa xool leen esclavage ku ne suuf si du safara xamule luy safara waaw kay Amadou xam nga yaa ngi commencé ñëw nee nga ne àddina doy waar xool leen suñu ñu lu ñu lu ñu vivre jamonoy esclavage <laughs> la ilaha illallah yow nga nekk sa sa sa village jékki-jékki rek gis ay nit yu weex au début bëriwuñu woon au lieu ñu rey leen au ñu rey leen ñu bàyyi leen ñu ñëw jox leen ay pom jox leen orange accueillir leen parce que ñu nit ku ñun dañoo sentimental waaye bu doon tubaab yi ñoom Christophe Colomb ba ñu ñëwee fii indien dañ leen rey kon indien ba léegi ñu ngi fi wala boog dañ dundaat yeneen cent ans te cent ans yooyu yàlla mën na leen may xel Nous découvrir fital mais Christophe Colomb Nous avons nous ñu Nous avons porte yi avons tamit bàyyi avec ñu ñibbi ak dem Espagne dire de ay été gars yi nous armée ñu nous avons nit ku village que dékki commencé la DAC. Nous pendant 150 ans 200 ans 3 ans c'est-à-dire en doo en xalaat jamono yoy bo ci nekkee nga dugg ci nga dëkk ci village da ngay tiit parce chaque instant ya ngi xalaat ne yeneen nit yu ñuul dañ tuba bi ñoo leen yoni pour ñu ñëw japp la def la jaam xalé yu jigéen yi ñu violé leen xol leen Rwanda huit cent personnes ñu rey leen ci 3 mois 97 la won 96 ba may dugg Amérique maa ngi rappelé Sénégal la ma fekk instant yooyu maa ngi waaj dem Amérique mais billahi dama ko daan seetaan sama yaram damay daan tiit te pourtant man maa ngi Sénégal huit cent mille personnes yàlla seetaan ko xool loolu Amadou Ba lool Amadou loolu safara yàlla mi ngi seetaan ñu massacré huit cent mille personne xam nga la mooy huit cent mille personnes juróom-ñetti téeméeri junni nit ci ñett ci ñetti weer te eh rey ñu leen ak fital de ay paaka ñii di leen violé xool leen tubaab yi américains yi euh, euh, tubaab yi bañ doon jël suñu maam ñaata millions d'africains la ñu wax la ñu yóbbu vingt millions xaw ma africain génn jëlee nañ leen Afrique vingt

tëj leen def leen caga ji leen sàkko am na benn waa joo xam ne dafa tëj ay xale la tëj dix ans euh, euh, euh, fii amerique dix ans la tëj ay jigéen ñaari jigéen xam nga ñetti jigéen takk leen du ñu sangu du ñu def dara takk leen ji leen sàkkoo ba jigéen bi sax foofu la jur jur na fa ñaari doom loolu du safara <laughs> yéen xam leen <laughs> yéen yaakaar ne safara mooy yàlla da jàpp di la lakk fi safara la. comme niko fat ki ne wax lan lañu def ren noir goog waye yow neeru ren fo réer lan lañu def ba yalla di mbugal mbugal bi mais nak àjjana la aussi ça dit dire ñun bonuñu ñun bonuñu à 100% mais da lay na amna yenen planète ño xamné xeyna yalla mi ngi leen di def li ñun li ñuy tuddé safara amna yenen planète yo xamné ñom ñoom ñu ngi koy dudd mais ñun dañu am chance ndax ñun au moins dinañu dé ndax boo deewee yaakaar nañ ne boo deewee xëy na lépp jeex wala boog boo deewee di am espoir daal mais yéen dañ leen di nax islam li mu wax ci ci ci ci ci euh, safara il faut ngeen xam ne ren gëj naa la gis de ba demoon nga Sénégal Sénégal nga bëgg a yàqu il faut ngeen xam ne islam day cax yàlla ñun ci moom lañu bokk. daf ñoo jox ay pouvoir mais gars yi c'est-à-dire yeen il faut ngeen di jëfëndiko seen xel islam dafa ne il faut ngay jëfëndiko sa xel mais fi ma nekk ak yeen li def yalla ko mën yalla rek mën li est-ce que pitch mën na créer ben téléphone ren noir ma gis nga yaangi finland ma nekk fi nan la yé eh, ren nga def pitch mënu ko jën mënu ko gélle ko la yalla la nit yalla la mo may nit Tout mu muy def yalla ndax avion nga defar ko rek ko avion nga defar ko ngay ci mais si nous yu ya ku leen waxandu avion dañ lay dañ la luy avion lolou mënul ne nous ñun dañu am ay possibilité bu ñu ans 1000 ans ak science ñu dunduwaat yeneen junni at te yàlla bu ñu mayoon ñu nekkaat ci suuf si yàquñu ko ñu junni yeneen junni at mais mën nañu sax di defar nit du dundu ñetti téeméer at te du dee parce que li ñu war a découvrir moo bëri ñun dañoo bokk ci yàlla bëgguma xeeb picc wala géléem parce que ñoom it li nekk seen xel ak monde bi ñu nekk ñun sax xamuñu ko te ñu lépp li li ñuy wax safara sax booy xool du safara

cancer du am tey laa yow dégg benn jigéen bu ñu xaw ma dafa am cancer ma xaw ma ne Abi daal xaw ma jabaru Abi daal bi dafa am cancer Kim Kardashian temps yi nga ñu ne dafa am cancer euh, ñu ngi naan la Gaston Mbengue dafa am cancer lu tax yàlla dafa feebar est-ce que feebar lu bon la déedéet lan moo lay feebar loo microbe léegi yow nga ne yow yaa gën microbe yéen doo xalaat eh, yàlla li mu bind yëpp nit moo ci gën a am solo Youssou Ndour way na ko yalla limu bindé yépp nit la ci gëna fokk mala luñu wutélé ak mom moy suñu xel xam nga mo suñu xel yus ndur loolu wax mais téggu ko fenn pour ñun ñu ñoo gëm mala mais mala li nekk ci xelam ñun dañ ko xam limi dund dañ ko xam ñu mala feebar du dara du lu bon de ndax microbe bi nekk sa yaram di yak di ko yàq ba nga souffrir ba dé gënuloo ko dafa bëgg dund microbe bi nekk sa yaram jox la nga nekk gaana pour yow lu bon la mais pour yàlla du lu bon ndax microbe boobu yàlla moo ko defar te dafa war a dund moom tamit adduna bi noonu ngeen koy xoolee évolution la xam nga noonu ngeen koy xoolee nit yàlla lu mu bind euh, kii ne ne da ngaa boobu <laughs> ah ren entraînement lek bu sel baña lek riba khalat yalla baña materialiste sa xel dal bu jigen bo, bo namul ren man dama dem man namul kuma dara muy jigen muy lek muy khalis te da nga wara tok xamne aduna bi amul solo ndax da ngay deeyu ben jour xam nga ren lan moy sama secret man kii eh, nee na feebar day bakar, bakkaar xam la mooy sama secret man namuma dara man damay dund xam la mooy àjjana mooy nga toog dara dalu la suñu àjj suñu àdduna bii ñu nekk suñu àdduna bii mu nekk àjjana la saf day neex suba mu nga yor ay milliards rek nga pauvre ci yem boo yore ay milliards nag ci lay mais loo yor milliard milliard comme Macky Sall rek safara le 8 mars tout tout tuuti mu dugg safara Sonko ko de da ngay ci bi mais ñoom Macky dañoo dem ba foqale fàtte ne dañuy mais bi ñu di ak safara bi ñu leen di tardel Sénégal sénégalais بوري جو خيخ دو خيخ بس دران غراول يالا نينا يننتي بي نينا ان الذين امنوا وامن صالح علي وتا واتا بالحق وتا واتا بسب من خمنا ني وار نين ما تراديو لول لا لي سيك جور لول لاي واخ ان الذين امنوا وامن وامن صالح علي وتا واتا بالحق وتا واتا بالسب سنغال لولو ني تادل خم لا ما ني تادل اجنا ورا خيخ اولي نغا خيخ ني لا نو نو ادنا بي غراول باي لن ماكي ساك ماكي سالو magal Touba léegi mu ñew de façon ah bo deewee da ngay dem aljana seigne Bass seigne Bass Abdou Khadar ren gennam bi mujj loolu doon wax gaay seigne Touba kep ko and ak mom di nga dem aljana ay mag yu ñak fayda gaay yi ngeen baal 40 ans 50 ans nga tok ñu lay wax aljana nga koy gëm yalla amul suñu jot nela bo julliwul boo deewee dama lay lakk ba ilaa yow mi diin mais gars xoolaat leen loolu wala ma dugal la ren yow fekke wa démba ren ma dugal la ci benn jardin boole la ak jigéen ay urul ay nuy rafet ñu nekkal la ci ñii dañoo yëpp yaay yàlla yëfu saay-saay red noir yëfu saay-saay à nit lu mu bëgg moom lay projeté xana yow yaa ngi Firdawsi ndax yaa ngi États-Unis mo affaire bi du fu nga nekk Amadou affaire bi xamal fan la état d'esprit du du matériel rek matériel bi nag da ci am importance parce que il faut ngay lekk tamit boo lekkul safara nga nekk ndax xiif mooy safara boo wérul safara la affaire bi du du du du am na ñoo xam ne mais sama am na ñoo xam ne ñu ngi Sénégal instant yi boo leen ne ñëwal Amérique ñu na baxna ma maa ngi Almadies am fa sama sama lépp lan def la lay def amerique man fi dem fi liggéey mais dama ne da ngay na yap yalla ay magum jëm di wax ne julli bi ngay julli yëpp ah lenn rek mo la ci lenn mo la ci neex bo deewee na la yalla ci ben jardin nga nekk ak ay jigen yu rafet xana jigen yooyu duñu ay nit ay malaka lañu wala ay lan lañ jigen yi di di la di la lembalal ah di sol jal jali di la fóon di la ray nga nek fi di yuxu ñomit ñu yuxu di la wayal ah nga nan ko position bi la bëgg ak position bi la bëgg kama sutra xaw ñu koy waxe di màcc ah di yefu salté yi tuba bi def yëpp ñuy def xana bu baax sax dañuy def orgie xam ngeen la moy orgie parce que dañ ni àjjana bo fa nekké mën nga am ay junni wax ñu ben euro ay nga yam de ay junni mais ren lo wax ci lolu dem leen di laaj kii nee na ay uri ay ni lañ day leer nay leer waa ay uri ay ni xanaa duñu ay nit ñu nekk ay junni xanaa da def orgie xam nga la mooy orgie nga nga jëloonoo ñaar wala ñett ñu nekkal la ci kii di foon kii di macc yéen a yab yàlla bu ma kenn yëbbu kër yaama di tax seen yëfu saay-saay yi génne leen ci yàlla ah da ngay gudd <laughs> dama ne seen yëfu ya da ngay boo fa nekkee doo dee ñëpp 33 ans leen ah ngeen uri ay di la di la di la dëmbalal ah di ay string non de wax ji bu wax ji day leer de parce que ah dañu àddina loo bëgg am ko loo bëgg am ko kon kay da nga naan ko sawaay dóoral ma sa solal ma sëriñ ah ne yàlla benn uraay ni nga def ko mu nekk taay fin kenn ki nekk joo jéeg taat yu baax ey eh, nañu wax wax ji yéene yéene yàpp yàlla kii ne la cee àdd àjjana moo neex loolu fii la am na fi mi ngi fii Red Noir mi uur ay la gis naa ko <laughs> Red gis naa fa tam uur ay baax la mari gee gisu ko ay yee c'est-à-dire àjjana uur ay yi ngeen di wax fii la man chaque jour ma gis ko ci bato bi bato bi ci été bi façon tubaab bu ne moo lay bu nekkee xale moom bu nekkee xale da ngay ci yalla te ñom xam nga tuba bi dañu xawa ngeen baal ma dañoo xaw say saay dem ci piscine bi sol sen trois sol sen string romb la nii du dara ci ñom da ngay gis indien bu baax gis ben noir américain té marron bu do war nga gis nit ku ñul kuk solo le deux pièces romb la ay ni fi la mais yalla amul jot dila eufel ak ay nit bu dé lol nga bëgg mëna la ko défal mais man de déwé ma ngi wax ma ngi ñaan yalla mu jox mu jox ma lenen ci nee na homme déedéet yéen amu leen dara homme uur ay na amul yéen amu leen dara binduñu ko fenn jigéen jigéen yéen moom dangeen ngeen perte yéen moom kenn waxul seen affaire yéen doo leen am dara est-ce que du yéen sax yéen la ñuy def uur ay ni yooyu ñuy wax yeewu leen suuf si yàlla daf ñu fi wàcce pour ñu gëstu ok loolu mooy wax ci xëy na bu ñu defee lu ñu war a def dinañu gëstu ba xam kan mooy yàlla ba xam li tax yalla bind nit mais l'islam nga ne julli wor rek jeexna dafa yomb yalla dafa ñoo wacc pour ñu gëstu ko avec la science ñu gis jaww ji ni mu ko bindé ni mu réyee ruy reya euh, ji rek ci ngay xamné nit du dara waxna len Amadou suuf si ñu nek tey bu ñu dem ci euh, euh, jakk bi waxna len ñaata at lañuy def pour egg

yeneen planète yëpp dañuy wër jant bi suuf si moo jant bi moo leen xëcc jant bi dafa am doole jant bi ñaata yoon la ëppee suuf suuf est-ce que ëppale ëppewul suuf un million de fois xaw trois cent mille fois jant bi dafa rëy de <coughs> ëpp na suuf est que du trois cent mille fois xaw ma un million de fois léegi jant bi pour buñ fa bëggoon dem dinañu def juróom ñaar fukki at pour egg ci avion bu dul taxaw boo nekkee liir nga dugg ci avion bi ne damay dem ci jant avion bu gën a gaaw laa de nga dugg ci nga ne da dem jant bi boo ye eggee boo yeewoo bu dee mënoon nga egg suuf suuf waaw ñaata non du 11 xaw ma ñaata millions man nee naa la il faut ma commencé waat boo eggee màgget ngay doon 70 ans léegi te nee naa leen jant bi benn rek la ci ci ñeenti téeméeri milliards yi jant. suñu galaxie suñu adduna bi ñu tuddee la voie lactée suñu jant bi benn rek la ci ñeenti téeméeri milliards jant am na ay jant yu ëpp suñu jant ñaari junni yoon wala ñetti junni yoon ñeenti téeméeri milliards waaye bi ñuy gën a jege bi ñuy gën a jege rek pour ñu dem fa dinañ def juróom-ñaar fukki at muy bii suñu jant non non suñu jant bi pour ñu dem fa léegi bu ñu jógee woon suñu jant bi ne dañuy demaat ci beneen jant bu tudd Alpha Centauri boobu moo gën a jege ci moo gën a jege suñu jant boobu ñaata at la ñuy def kan moo ma ko mën a wax fii waxoon naa leen ko de joxoon naa leen ko ñeenti téeméeri milliards jant suñu galaxie eh suñu galaxie benn rek la de am na ay milliards milliards milliards milliards milliards galaxie am na galaxie yoo xam ne dina am ay milliards junni milliards jant mais ñun. suñu suñu jant bi jant bi ko gën a jege bu tudd Alpha Centauri buñ fa bëggoon egg te bu boobaa dootuñ sax dugg ci avion ci fusée li ñuy dugg te fusée moo gën a gaaw avion junni yoon xam nga ñaata at la ñuy def ren soixante dix mille ans merci Amadou soixante dix mille ans nga nekk bi di yàlla ñun rek ñoo nekk ci àdduna bi. buñu déé dañuy yobbu safara àjjana parce que <laughs> asaman bi ngeen di gis amul Asaman, amul souf ci dafa melni ne benn bal bal bal balu basket bo ngeen di dégg boko sanni won mu tak ah asaman amul souf ci dafa nek rek ci benn espace 70000 ans kon léegi buñu ñu bëggee egg ci benen ci benen bu ci topp dinañ def peut-être 200000 ans est-ce que gis ngeen jaww ji ni mu toll ngeen ne ndur rek ñu am ñun rek ñoo am bu ñu déwé yalla ñun rek lay atté ñeneen ñi nak lan leen yalla di def non dama leen di laaj cest à il faut ngeen di yalla du la ko may nga xam ko bu ñew di la lak yalla ñun dañoo bok ci yalla yalla xamul metti xamul banex ñun lool moy suñu problème la vision anthropomorphique ñun lu ñuy dundu banex pour ñun lu bax la bax amul méttit pour ñun lu lu bon la met bon amul méttit dafa bok ci ci dund gis nga jaajëf pap Diagne gis nga banex dafa bok ci dund mais le bien n'existe pas le mal n'existe pas Macky Sall loolu la xam motax muy tejj bu waré rey ñu rey dégg ngeen ko waji nako président dafa wara tejj président dafa wara a rey moom xelam moo toll foofu jaajëf Pape <coughs> mais le bien n'existe pas le mal n'existe pas <coughs> Yo, li ngay wax metti si sa yaram la nek li ngay wax safara lu bax la le feu du lu bon ñu du woon safara tay du ma fi naaj bi dima lak sama ma am lu ma neex sedd bi daf may rey du dul safara bi sedd bi daf may rey yeen yeen li ngeen gis ni lan la ngeen yaakaar jent bi safara la safara la bu beuri buy buy bax mais dafa sori sori ba nga xamne bu ñewé ci ñun duñu lak comme safara dafa sori huit minutes lay pour minutes 300 cent mille par seconde voyage mais le temps muy ci ñun dootul nek safara mais tay ñun buñu dem ci egg ci ci ci ci jaw ci ci euh, dem parce que bala nga fay dem da lumière dafa mel guddi dara buñu talon dara fi mu guddi da ngay gis tak da ngay gis lumière bi safara du lu bam lu bax la bu duloon safara neena len nit du nek ci suuf ndax bu ñëk ba ci ay grotte lañ la nek animaux yi ñëw sonnal ñu mais animal bu gisé safara dul song nit gaynde lu mu for for for bo yoré safara ni tal day daw safara motax nit exister Metit bi du safara bi mo la koy jox metit bi sa yaram la nek suma la jame dang koy yek suma talé birike sa yaram dang koy yek suma la mbéjé dang koy yek metit dafa yalla daf ñu moñalé ba neex ak euh, ak euh, metit bu la mu neex sa jabar boko rayé mu neex bu la rayé mu neex bu la foné mu neex mais nit ñu wacc uru ay ni yéen da ngeen yalla yalla lim leen defal defal la nga nga am monsieur cheikh ni di def téléphone nga nekk France Pape Diagne may wax ak yow nga may gis mais looloo gën a neex mu may la ngay xalaat di créer ay affaire di créer avion muy daw ci jaw ji xoolal voyager un voyager deux plus de 40 ans ñi ngi ci jaww ji ba léegi ñu ngi ñu ngi voyager taxawaguñu dara du leen laal. billahi wallahi taalaahi te xoolal dinañu continuer di daw un million d'années nit dina dem ba jeex si suuf nit mille ans rek moo ñu des ci si loo leen souci mille ans fi guerre nucléaire day am ñun ñëppay dee ak une chance loolu ce que le professeur Bob, nous mu tuddoon tamu dee dama ci chaise roulante bi at moo ñu dese suuf ñu ngi koy ah ñu ngi nous mais voyager un voyager de, nous continuer di millions de at dinañ continuer parce que nous. tuñu euh, amul essence dawul len dawul leen dawul len pesanteur espace bo ci nekkee da ngay bouger rek do taxaw espace mom bo xasse génn da ngay bouger 1 million d'années dañu continuer di dem dem nak ba suñu digg galaxy ñu commencé di nag di wër loolu lañ yalla may capacité bu yeen ngeen top di wax ay ouri ay ni ay kër ay ay ay ay kat kat man so leen déggee mané ne wu ma Sonko faalewu wu makissal man man ci yoy la né nit ki waro ragal dé dee waroo ko ragal fu mu waree ñëw rek lay ñëw léegi nag bu fekkee ne bëggu leen xeex nga jël lépp nga teg ko ci Sonko seen affaire la man de Sonko man dootuma fi nekk di sonal sam bopp ci affaire affaire Adji Sarr bii le 16 bii ci laa ko ci wala ma continue su ma gisee ne yónnee na fa ay avocat ak moom li mu ñu wax yëpp ci terminus pare naa waxuma ne dootuma def live de waaye su may def bi dinaa wax ci leneen. mais man ay affaire président ak affaire Sonko ak Macky Sall sama yoon nekuti ci sama yoon sama yoon musu ci nek sax sénégalais ño wara yew te nit ki mëno yew ci lo xamni témir at dañ la té tank sëñ Touba ak ñom ñom témir at ñi ngi fi waaw xale yi mënu ñu yew parce que xamuñu seen xel mo tollu ful man ba ma amee vingt ans 27 ans 30 mais lima xam yi xawmako ma nit ki lu mu xamul xamuko xam ah, nga société nag xam la moo koy yee en général lu métti moo koy yee ay guerre wala ay tremblement de terre wala feebar comme Covid bi wala français tubaab bi la moo tax ñu yeewu peste noire moo leen yee ak Hitler moo tax ñu yeewu juif yi lan moo tax boo dégg ñaan juif yi dañoo soxor juif yi soxoruñu de mais li leen Hitler def moo tax ñu ne dootuñu nangu palestiniens yi duñu ko def moo tax ñuy rey palestiniens Sénégal nag dara lu métti mosu leen dal dara lu metti mosu leen dal ñu leen di gëmloo ay Youssou Ndour ay Wally Seck ah, ah di leen gëmloo ay ajana ah affaire yooyu mais nag il faut que dëkk bi dara am te moo ndoroon am le 8 mars waaye nag sëriñ yi gis loolu ñu ne déedéet bëgguñu xale yi yow léegi nag Sonko moo mën a sacrifier boppam pour Sénégal changer te nit ki doo ne ko rayal sa bopp nag ah, ah saa yi loolu tamit neexul nit ki mënoo ne ko rayal sa bopp waaye Sonko moom bu dee moom Sénégal day waaye nag nit ki mënoo ko forcer nga ne ko da ngay dee voilà gars yi gars yi bàyyi leen ma conclure sax voilà bàyyi leen ma conclure yërmande bu leen ko acculé nag kan ma ko acculé kenn acculé wu ko kenn moom li mu wax rek lañ ko topp moom dafa ne dafa ne terminus affaire Adji Sarr léegi nag doo ne terminus ba pare a fayda nag xam ne ñëpp xam nañ li muy wax ni yëpp man kenn du ma ñàkk a fayda forcé de mais man awuma temps chaque jour fii ba neuf mois di toog di seetaan Macky Sall di def lu ko neex jot boobu laa amul il faut ma dem commencé waat Netflix nekkat recherche xool jaww ji xam nga Sénégal nag Sénégal nag yéene seet yéene seet boo leen bëggee Macky Sall continuer di def lu ko neex gaa ngeen baal moom leen fa am ngelaw mais loolu ci yéen la mais dëkk bi moom bu waree changer rek dina changer soxlawul taal kër soxlawul nekk di def dara boo Sonko bu bëggee xeex dina xeex bu bëggul xeex mais garaawul Macky Sall gaye wax jëpp loolu la yi euh, maa ngi coupé ba suba incha allah ren kontaan naa ci yow fi gën nekk te waxal ñoom jaara euh, ba tam war nañ ñëw merci a tout le monde Pape ah. ba suba incha